tamit day wujj rek parce que c'est un sénégalais comme tous les sénégalais su ko dig wooyee day wujj dig parce que dig moom nekkalu fi Jean wala Paul moom ñëpp la fi nekkal waaw. bu ko wooyee bañ na ko ba daf ko yombal liggéeyam parce que bu doon mi ngi nekk lam doonoon bu ko tekkiwuloon ndomba tànkam digg du ko mën a woo mais am na ngoru tekki ba tànkam pour digg mën ko woo ba dig mën a def liggéeyam mais un privé buy <laughs> def liggéey un privé kooku moom yoonu état newu ci. tey dig mënu ci dara parce que nag opérateur yi fi nekk ak am homme d'affaires yi fi nekk ñi ngi liggéey ci réew mi moom kay xanaa benn handicap la am le frère du président. loolu mooy seen loolu mooy seen wàllu borom gémmiñ guy naat lu wax jàmm te comme ñoom dañuy wër di dara te gis nañ li ndax na ñoom bu doon bu doon ñoom ñoom ñoom dafa mel du ñoom sax parce que le président Macky Sall fii dem na fi France TV5 euh, kii ko interviewé ko. ñuy kaas ne lu tax euh, ñëwul Sénégal wax ak euh, kii sénégal yi pourquoi kon benn euh, lu nekk un ba un boo xam ne dëkku fi mën leen jox loo xam ne li mën nañ ko jox en vigueur bu toll ni ñoom seeni gëstu lan la xanaa ñoom gëstuwuñu boo leen déggee ci pétrole bi da ngay defee ne yow pétrole baa ngi ball ba géej gi sax doon na pétrole Macky Sall di ko tànk di tuur te pétrole bi Macky sàll moomu ko ñun moomuñu ko kenn ñëpp ñëpp a ko bokk Macky Sall li man def na ko loi boo xam ne dafay aar li nga xam ne ñoo ko bokk ñoo ko moom ñun ressource naturelle loolu la Macky Sall man te def na ko waaw. Macky Sall yow Ousseyn lan la Macky Sall deful cinq ans yi passé ci la créé CMU bi couverture maladie universelle ah loolu rek jaroon na ñu ne Macky Sall gongo ah waxuma la bourse sociale yi nga xam ne mi ngi koy dimbalee ñi nga xam ne ñoo ne ci àll bi bourse sociale yi ah PUDC bi wax naa la li mu fi def lépp te PUDC bi incha allah deuxième tranche bi département Mbacké ci la bokk waaw kon am Macky Sall li ko war yëpp mi ngi ci moom nag talul ay wax xam nga lu tal di dem di wuti di indi di liggéey ba bu ëllëgu 2024 jotee mu mën na sénégalais yi li ma leen waxoon kat lii laa leen waxoon lii laa def ñu xam ne lim ñu waxoon def na ko programme bi mu tëral set na moom programme am 2035 la jëm mais li mu diggoon Sénégalais yi bu 2024 jotee bu présenté bilan ñu xam ne li waxoon def ko def na ko